lu ñaaw di jóge ci nit di dem ci Clara ndax fi mu ko teg buggul dara loo xam ne day xusi Clara. macha allah kay ma wax mas naa dem France. France. waaw waaw. ci benn hôtel. Clara ba mu nee dama fekk ne Nicki Minaj moo wàcc. xaw ma musuma xam kalaara <laughs> après lay doog xam ne jabaru sama papa la. mais Kalenda bu defaroo ba jël sëfu bi langal ko ba mu yëg si fii. mu def deux mais danga naan arrête Beyoncé war a Nicki Minaj Doro dafa mën a tànn bu di dafa baax. macha <laughs> ma déggee gars yi naan Clara dafa màggat. non dafay am lu may yëm. Clara mm. kay lenn laay jooy ci moom maanaam bandi bi muy jaay xale yi wéyu gi mu doon ak nanguwul wujje mais bu dee rafetaay moom ak moolaay bàyyi ko ci loxoom lu leer laa leen di wax yéen a ngi jaawale de Clara rafet pop pop pop pop Clara moom macha allah papa ma de ndax sag moolu jabar wuru ma ko tuub ndax yow suma nit maa ngi jéggalu bu baax papa di tuub dëgg yàlla sama kilifa nga waaw léegi nag léegi nag jaara waaw léegi nag jaara waaw grand frère Doro Gueye mi mooy jëkkëru Clara d'accord. ok léegi Clara <laughs> dafa am wujj Clara dafa am wujju Nicki Minaj. daa am wujju Nicki Minaj mais defal ndànk ma ñëw ci wujj yi ak programme yi ni mu demee. d'accord. Euh, Doro. dafa takk ku ni wax rakki ay dala dara Mauritanien la maanaam ñoom ca soow ma lan xam ak àll ba mais yàllaa leen nattu ñoomit it sol leen ak rafetaay maanaam ñi ni wax urul ay ni ca yowmal xiyaam boo ci seetee ci biir am na ca ay maam wala mu am ca ay sët moom rakki ay dara ndax yàllaa ko bindee noonu taayi du bàyyi gàttul njóorul léppam tolloo mu neex macha allah. may jéggaluwaat papa Doro ci neexaay gi ndax waruma ko. léegi nag. waaw. rakki ay dara moom mooy xaritu di jaxasaa bi rek kii mooy rakki. d'accord ma xool kuy rakki. Mauritanien. waaye nag <laughs> fa la ñeewoon nag waa léegi soxna Aïdara ah benn nag moo am ci kaa bi dama xamul ndax sama papa ba muy jël rakki ñëwoon na ci Clara ne ko maanaam damay takk ah, jabar ah, takku suuf la woon daal takku suuf takku suuf la gaa yi wax man ma jàppee ko takk discrétion ndax ah, dooro léppam da koy réservé léegi nag baccalauréat yëgee ni Doro Gueye daa takk rakki takku suuf comme ni koy waxee parce que rakki ay dara takkam siiwul Mauritanie lañ ko takke ñaari për lan woo ak benn naar ñu toog boole koog di jëkk saa mu leen di wéttali ñu taal fa cuuraay naan fa ay ñambaan jeex na xew la amul dara déedéet déedéet. waaw déedéet woowuñu woowuñu woowuñu ñaari pël ak naar. waxal waxal leneen. waaw noonu takku Mauritanie noonu la. waaw. léegi nag bu dee takkub Kalaara moom dafa siiw ñëpp xam na ne Kalaara bu Doro Gueye la te Doro fu mu Kalaara dafa rëy de a ah. kawe. Clara yow Doro mën na cee rey nit. allah dafa bëgg Clara. bii Clara Doro da bëgg de allahu akbar saa tëtëtët ba pare ku la jural ay doom. waaw bokkut ak léegi. damaa xamul ndax sama papa Doro ba muy takk Clara déggal Euh, ay dara yëgal na ko kalaara hmm. looloo ma desee wóor kalaara ba mu ko yëgee daadi di tas déedéet dem sa déedéet waaw parce que daf ne man takk suuf bi ni wax bu dee sama jëkkër dafa takk te man yëgaluma ko mais bu dee foofu war am na raison parce que man jàpp naa ne bu fekkee da ngay jël soxna am sa aawo li lislaam wax te mu santaane ko mooy da nga ko ko war a yëgal ba pare bu fekkee yëgu ko heural la foofu ci sama papa Doro beneen bi ci tegu mooy Racky Aïdara ni mu moolee rek ni mu taaroo rek ni mu taxawee rek añoo bu ndaw girile tay Dubaay gàttu njooloo nan nga mën a nangoo ñu lay takk takk suuf takk goo xam ne siiwul buñ la daan tuddal Doro Gueye ngay sànni xelu Sénégalais yi naan leen madame Ngoy laak madame Kiis ak madame Koos ak ci géej gi yaa daanu nee naa leen daanu cëppeeloo ci gaaw bay xala juutu bëm ma nga ko waree def moo yàq. naka nga mën a nangoo loolu yow tamit takk suuf. cey yàlla. doora nag déggal ah, ah, rek àdduna bi yépp dañ doon wax rakk takk nañ ko takk suuf doona gay da koo takk rakk séeri dina gay rakk di dofloo sénégalais yi rek naan leen duma madame gay madame nguy laak madame madame Koungak, waouh, Doro, c'est ma frère, on est dans Pan, on est dans Soulan, on léegi nag yàlla dafa teg natt sunu papa Doro Gueye président Ousmane Sonko ak président Diomaye ànd na dañuy saytu Doro Gueye ndax xibet la amaloon benn naar problème yàlla na ci am jàmm te yàlla bu mu ko dalati loolu ndax ku baax la dugal ko ci kaso bi nag léegi nag ba door a duggee ci kaso bi la mbëggeel gi di doog a feeñ bu rakki ay dalaa musu koo wane xam nga nag dafa neexul ñu yóbbu sa jëkkër prison nga toog ay semaine yow boo dee tëdd da ngay boo làmbee ay yoo ngay daj ay matelas ay darab ay ngeganaay amul lu la wër doo tëdd góor kenn du la jege man nga soxla sa bopp man nga soxla leneen foo toll di nga jooy jooyu xol sama jëkkër a ngi ci kaso bi lii man <laughs> waa léegi nag léegi Doro Gueye ba ne ko coppet yóbbu sama papa ji Racky Aïdara ak Clara ñoom ñaar dañ doon seeti Doro Gueye xam nga fan la kalaara xame ne dooro Gueye mii dëgg na dafa takk takk suuf Racky Aïdara ba nu yóbbu añ dooro daal ñaari boolu añ ñoo fa daje ci même heure ñaari boolu añ rakki wàcc di indi añ. déedéet Kalaara indi añ ñu ñaari añ yi fu. déedéet. naa yow yëgoo la xew. ah bopp bopp bopp bopp foofu toj na foofu naa fa def point d'interrogation wax la la fa xew continuer. déedéet. ah ah. Yeah. Hop, hop, ñaari xoolal ñaari yóbbukatu añ madame Clara ak taxab euh, rakki ay dara wàcc bu ñëwee salaamaaleykum commissaire ça va c'est Racky c'est pour qui euh, c'est pour Doro sa femme bu Clara ñëwee commissaire na ko ça va souvent mais Clara kenn du ko laaj nga nañ ko dooxoo ñaari boolo añ ci dooro coow la takkar naa sa nag. Clara fëgg baj rakki bëm yéen mas naa leen nettali xeex boobu xeex amoon na fa de mosu leen ko xam laa ilaha illallah yéen loolu mosu leen koo xam xeex bi dama leen ko fàttee nettali yëgu leen woon loolu. <laughs> woon xel. lan moo def déglu ma rek déglu leen ma nettali leen ko ak maa maîtriser cas boobu. rakki daal ba mu wàccee booloo añ bi dem géy dooro kalaaraa wàcc fee kalaaraa na ko bum tubaab bi rek nekk foofu naan suma suma suma yi di ko xëcc yi rakki taxawal nii mu mel na fel ci seen biir ataayi ah, Dubaay bi suma suma xam nga déedéet commissaire bi de noonu la leen refoulé doora boo fexee ñambaan la nekk bis boobu la fa xewoon nan lay añ di dugg yow ndeysaan xam naa ay añ yu neex la leen la leen jabara bi toggaloo ndeysaan ah loolu lay toog kay. ñu rëppale jabar yeeg añ ya boole yóbbu. déedéet. ñëpp benn añ dugul. ah ah. waaye nag. Doro Gueye. jabaram bin ko gën a xamee Sénégal yëpp ràññee ko xamee ko ko mooy Clara. kenn mu sa xam taayu Dubaay mii di rakki léegi foofu la coow li commencé ba nu jàppee dooro léegi Clara oh. après dafa tas ñee ngi naan tas man mën a tasul sax mais comme si dafa fay dem kër yaayam kër Masaar léegi nag jour bi nu jàppee dooro lani doog a xam ne rakki dara Doro Gueye moom mooy jëkkëram xamoo nañ ko ñun avant ñun moom xamoon nañ ko avant mais rakki moo doon dofloo Sénégalais yi ba ñun nant mais comme que dafa metti nag mu fësal boppam léegi kee ba mu demee tas rek day ñàkk palaasu awo ndax moo naan dégg kalaara aawo yaay gëgën ñaareel daan gëgën aawa yaay kalaara aawa yaay aawa yaay aawa yaay yaay aawa yaay ndey kalaara bëggin loolu la fa daan dégg ci kër ndax ma nga fa woon toog muñ ko fa ba mu fayee ñibbi jamono ji muy dégg aawo ñaay booba rakki mi ngay dégg ci suuf ndax rakki kat ak takkam dafa siiwul xam naa wut na ay ñaari géwalam yoo xam ne nag duñ génn télé duñ génn rajo mais ci nopp yi rek lañ koy daan naan ko ñaareel xaritu jëkkëram rakki ay dara sa jëkkër yow la bëgg dooro yow la bëgg Sénégal yi naan ko ku du bëgg dan lay affiché bu la bëggoon da def comme ni mu def Clara di la affiché di la wane fépp di la yóbbu ay voyage ngay dem Dubaï di dem Siin di dem France ñëpp ràññee la waaye mu lënk la rek nga nekk ci takku suuf gi wut sa ñaari géwal ñu topp la kenn du leen vidéo musuma gis géwal buy tagg rek lépp discrétion ak privé ñu ngi koy ñaareel rek xaritu jëkkëram ñaareel <laughs> léegi nag Clara ba mu tasee dem kër dooro Gueye dafa ñàkk palaasu aawo nekkatul aawo léegi dañ ne woon comme que liñ lay waxal dëgg la maanaam Clara ci boppam dafa porté woon plainte dooro Gueye ci takk suuf bi parce que Doro foog naa bu ma juumul sama papa ji Clara rek la ko wax ne lépp yaay boroom yaa signé ay affaire am teg ci li ma ah, man sama papa la nag du ma wax ci moom ndax sama xarit la. déedéet. porté woon na ko fi plainte waaw. léegi. Clara. buggul wujju. Mm, mm. lim gën a bañ ci àdduna wujju la rawatina wujju boo xam ne da ñëw rek siif ci xew li ak sa takk suuf. boobu la du ko mën a digérer jaral na ko naan acide. ba pare xale yu vingt yi danoo aay ci meer yi ku leen moytuwul dan lay jàmm di la peebar di la xeelu di la def ay manière di la wëngal di la juutu taayu dibaay leen a yomb ak ngarale taayu vingt ans lan ay xale yu ndaw paj paj kij kij ñaal wangitu topp déglu ma rek Did it. Did <laughs> waaw. léegi. Uh-huh. gannaaw bi mu porté plainte Doro daal di tas nag léegi nag rakki ay dara ba nu koy takk ban ko takkee léegi rakki. pour li ngeen xamul ma wax leen ko mu sa jot avance su Doro Gueye lépp. may gu njëkk rek la joxe woon. démb barki démb lañuy ñuy doog a li ci des defuñu woon dara takk gu ndaw lan defoon joxe may gu njëkk barki démb lan financé li ci des. vidéo yi nga xamante si nii rakk def na ko ak monsieur dooro Gueye ay vidéo yu yàgg la def na un an ba ngeen gisee noonu xasaa mu toog mel ne. kuy wax naan nag ñi ma sœur avec def na un an yi ba ma ciy teg sama bët un an yi def na ko mais photo waaw mais photo yi ay photo yu bees la video yi moo yàgg mais photo yi photo yu bees la ndax boo xoolee ci photo yi biiru Racky Aïdara bi mi ngi jóg ndax dafa ëmb jël na bal bi ëmbal nañ ko fi mu toll nii dafa ëmb te doom ji mi ngi war a juddoo Amérique bu ci yàlla àndee bu saasiwul destination bi doom ji di juddoo Amérique lan waxoon fi mu nii bu ngeen xoolee photo yi bu baax biiru rakk Aidara bi dafa jóg parce que dafa ëmb photo yi yàggul mais vidéo yi ñoo yàgg vidéo yi ñoo def un an mais photo yi barki démb la Mak Vision moo ko def léegi déglu ma wax la yow rek laay déglu grand frère. ka bëgg kaa jaar maan ko foox kii. waaw. léegi jaara. vidéo yi nga xamante si nii ay dara def na ko. àq ba nu koy takk dem Mauritanie tourné ko fa vidéo yooyu yëpp def na un parce que takk gi lan doon nëbb kenn génnewul woon ay vidéo parce que bëgguñu woon a affiché wu comme si que Doro Gueye takk na rakki ay dara danoo bëggoon mu tëb noonu rek comme takk suuf lépp maas na ndax Doro nit ku siiw la nii la waaw léegi photo yii na gis rakki ay dara di kott Doro di ko jàpp fii di ko wëngalu doora di teg loxo yi yooyu bërki démboo njaay la naa la wax li waral photo yi dinaa ci ñëw bu ngeen xoolee photo yi yu bees tàq la bu ngeen xoolee coiffure bu mu yore mees yi mu yore rek ba tey moom la yore bu ngeen xoolee biir bi fii dafa jóg seetlu leen photo yi bu baax maa ngeen moom ku ko ëmbul ma tegal loxo biir bi daa jóg parce que dafa ëmb jël na état de grossesse te doom ji mi ngi war a juddoo Amérique yàlla na juddoo jàmm ñu tuddee ma ko ndax doora sama xarit man lu ma leen wax ci kaa bi du deñ léegi moom ma ñëw ci lu waral photo li waral photo yi mooy rakk ay dara euh, kii euh, Clara ah jouru anniversaire am Doro Gueye da ko wax ne ko dañuy takkaat dama lay defaatal remariage parce que amoore foo jëm ci douze bi passe d'accord si manqué dama lay defaraatal remariage waaw ci ci li ma jàpp ak li nit ñi wax ak information bu ma jot que maanaam tas naa ak rakki ay dara rakki du sama dara takkuma ko te mus sa nekk sama aawo sama ñaareel la ma sa doon na nga nekk aawo ñaar aawo yaay ñu d'accord ci loolu waaw ñu d'accord ci loolu léegi ba ñu waree def remariage yi avant ñu koy def dooro gisee naag ki nga xam ne moom mooy rakki ay dara ne nekko ne ko dinaa defaat da bëgg ñu ñu ñu sunu takk gi man a yow pour sénégalais yi xam ne dama laa takk takkuma la takk suuf mais dañu laa ñaan si te dama laa takk te jour tel laa bëgg loolu am fokk boobu fekk nag mariage kii tamit ñu ngi koy waat léegi nag rakki dem def ay sotinam def ay photo Mag Vision pour teg mais nag rakki tamit xamoon na lii xew ndax xamoon ne remariage dina am ndax kalaara am na lu muy waaj parce que kon day ñàkk palaasu aawo ñaareel lay doon léegi ñu def ay photo yu civilisé kenn nekku fa woon nag photo yi ñoom laag màgg vidéo wéngalul ma jàpp la kot ma fóon ma téye ma eh, ñori ma xool ma fii jàppal sama loxo beeg nangam nangam ñu photo denc ku nekk yor ci say téléphone di xaar bis bu rafet xam nga lan mooy bis bu rafet buñ démarré remariage yi bay waaje publier rek rakki kat nday affaire yi bëm ne maa ngi di tey lan ma doon officialisé nii la kaa bi demee. déedéet. waaw. léegi léegi léegi kon Racky ak Clara ñoom ñaar ñëpp delluwaat nañ ci seen néegu sey. delluwaat nan Clara fi mu toll nii dafa xaw a am ay problème tuuti ndax dafa tooñ doolo mais Doro dafa bëgg Clara parce que da koo jural ay doom. mais Clara moo buggul wujj waaw mais ñëpp a ngi naan lépp ci sama papa mais man sama papa duma ko balaamee ndax nit ku baax la dooro kenn gënu ko ku baax la ko am yërmande ci jigéen la ko mën a jàppale nit la alalam du ko boole kenn man sama nit la sama xarit la mais Clara moom moo sikk parce que wujju wërsëgu yàlla la bu leen ay nit boolee bu fekkee dooro def na erreur. sa jëkkër la woo ko nga ne ko ba ngay takk waroon nga ma koo yëgal ngeen waxtaan mais coow li waru woon a egg ci internet bi ngay pamte pamteeg ak xale bu ndaw deux ans deux ans yow nga nekk maire say tës san weex sa taat nag ba baax safurlaa sa kii baax na safar moog yooyu maa ngi jégalu papa Doro xam nga waaw mais ay ay dugal estati di nappaate di xuppaate xale yi léegi yi kenn mënu leen napp karaaraa kenn mënu leen xupp danoo bari ay mbokk waa Mauritanie naari yàqal diggi yàqal xaa ñoom ñëpp ñu dajaloo dégg wolof bay bëgg a dee koo ni ci marocain nga sax day bañ ndax day bëgg doon sénégalais ndax jege gi nu jege mënoo leen a naar yi dañoo bëri sot bëri ay mbokk. déedéet. la kaa bi demee waaw. Clara nag moom rekk ay dara moom mënul ci moom dara mënu ci xool. te kalaara dafa ñeme sëriñ day liggéeyaate am na fu mu yóbbu woon sax rekk ay dara mii dinaa leen wax turu sëriñ bi wax leen kañ la woon ak kan la ci ah, influenceur sëriñ yi de waaw waaw grand borom boroxaan li ma la mën a wax ba man la ko wax mooy kalaana affaire wujj ñi ma nekkee rey nit yow nga topp jëkkëram bu sañoon nga dee tey dina def la tout nag ba rey te te ay dara dafa war a jóg ci boppam Racky dafa war a xam sëriñ yu baax dugg Saalum sangu ba set daadi defaru de moritani ba màgg parce que ay fan yu néew rek déedéet ndax Racky feebaroon na fi ba nekk hôpital entré yéen ñi ñëpp kenn yëg ko ci ba mu génnaatee ñëw commencé nekk ci ay yitteem yàggul instant bi mi ngi nekk en état de grossesse te ku ku ne xam na grossesse da ngay ëmb doom bu ndaw nga ñaan yàlla mu juddu ñu ne doo dina dooro kat am na doom ak euh, Racky Aïdara parce que am na njaboot ak Clara yoon la mu am njaboot ak Racky aydala fi mu toll nii état de grossesse la nekk. su ngeen xoolee photo yi bees yi wax laa ne gis ngeen biir bi ni mu def loolu du biirub kese rakki lékku fa lu tol noonu jëlul ay conteneur naanul ay doom dafa ëmb. waa grand frère. Hmm. franchement bu ñu waxantee dëgg dëgg dëgg rek ah affaire bi naka lañ koy waxee ci sax. c'était drôle xaw ma nan la ñuy waxee c'était drôle sax euh, en wolof. reetaanlu na mais bu xamante ne nii nit yi dañuy dañ day genre sa santé dafa nekk en danger wala sa santé doom dafa nekk en danger loolu loolu si xalaat en fait loolu est-ce que jar na ay ay wujjante waaw ay wujjante nag mais xale yee ko def parce que li tax ñu topp dooro kala kalaanaam mu xamul mu toppee dooro mais rakki moom Doro am na xaalis milliardaire la siiw na rakki doful du sëy ak xale yu jigéen ñi Sénégal yi déglu ma wax la feeraay waxuñu ci dara waxuñu ci koy gas ay bàmmeel dara waxuñu jàngkatu alxuraan dara waxuñu ci maçon dara feeraay duñ ko laal jaaykatu koko bugguñu jaaykatu sombi bugguñu kuy wër di jaay socc bugguñu emprunté bugguñu électrique bugguñu xam nga lan la di wër. way waykat bu siiw ak milliardaire ak pro dangay am jaara sa doom ju jigéen rafet bay bëgg a dee aadama ñëw bëgg ko cëpp yaayam xam nga lu lay njëkk a laaj ça nga ne ko ça ndaw saa ngi toog de euh, mbokki fan nga ne ko man de maa ngi dëkk mbokki ngeekox munal Dakar ne ko maa ngi dëkk ci àll ba ngeekox ah ngeekox ça va Euh, tu fais quel looy liggéey nga ne kon man maçon laa quoi patron laa mu ne li nga gis yaay ji du la wax dara de maçon baax na boo génnee kër gi xam nga lu muy wax doom ji yaa ñàkk ful yaa ñàkk jom yow gis nga ni nga mel ak def ci ay maçon bu ko ñu ne yaay man kii moom daf ma sonal mais xamul xetu silibom mais gis nga boo leen waxee ne looy def nga ne leen noo man pour la Manchester City lay footballé wala Manchester United j'ai joué en Olympique Marseille j'ai passé pour Paris wala leen ñaari bal yooyu tal di songale rek yow ne ko man jooru sa ñàkk teg rek yaay ji ne moom la loo kii baax na pour la sama jë bi dafa baax daal dafa yoox te fi muy footballé mën nga leen nax ci pro ñamee leen ci pro. ëmbale leen ci pro ñu am doomu pro mu judd moom di pro waate ba dee lii la Sénégal di dund waxuñu ci maçon dara pro ku siiw milliardaire taj léegi nag